lii ci réew mi <laughs> calme en tout luy luy euh, ci yow jàngat bi parce que mami am na lu mu tudd sànq ni finalement euh, laataa moo dem mm-hmm. jaxase na kër gi ci yow jàpp nga ni sax war nañ ko mën a lijjanti moom bàyyi ko noonu muy dem ci 4PM mel lu dara xewut ba tey ma ngay lijjanti parte mel ni am na leneen lu muy waaj ci diggante boobu ñi jotoogum ci réew mi. Mm. fu nu laar rek mu mel ni foofoo gën a métti ci yow war nañ ko mën a woo. ah en fait ah moom it daa mel ni yaa ngi tànk wax na ba tëgg taabal ji. <laughs> waaye xam naa nag damaa fekk ku ne teg kafeem. ndax xam naa dafay wuyoo. Euh, café gi café ak <laughs> xasee nañ ñu ko démb sa bos a ñëw. ngeen ngeen teg seen bos toog bos. ah nga a leer la ah, dugal ah, kuu ah, commencé naa koy yëngal waaye ba léegi bu la coom dóoree beneen kuu. waaw waaw en fait euh, le président de la République euh, Macky Sall mm-hmm. ko nuyu ah. Mm-hmm. delloo ko wàccuwaayam ci mm-hmm. këmtilaay la mu def moom maanaam jiite na Sénégal douze ans am yu baax am yu bon am yoo xamante ne vraiment dafa bon. bon a bon dafa bon a bon. <laughs> et alors maintenant nit ki nag bu nekkee ci dëkk yi quand liggéey fa tant de années yi mu def yu baax tamit euh, war nañ ko ci jéem a tatagal yi mu def ci yu bon nag ñu critiqué ko ko sikkee ko ko waaye man dama bëggoon xam moom anam ndax ñëw na. wala ñëwagul déjà le président de la république Macky Sall. bu dee ba léegi ñëwul ñu ne on a l'habitude ndeysaan suñu président yi amuñu chance benn président pare pare toog fii dugg ci marché yeeg dugg ci rapide yeeg ay doom bi jax suñu si c'est propre vraiment net nickel. Hmm. dëkk bi gërëm la doo sax bëgg génn fii. dëgg la ndax ku ne sa nga sa dëkk nga bëgg nga bëgg a nekk. Hmm. ne sa bëgg nga sa nga bëgg nekk dafa dafa yaatal ci àddina loo xamante ne dem na sa ba ci mariage yi. boo boo takkee ivoirien boo takkee nangam boo takkee nangam ni ku nekk dëkkam mooy suuxatam te mooy ay banqaasu yaramam. bu dee suñu président ku ci paree rek ndeysaan booy faatu sax bu ñu indi fii dañ dañuy indiwaat. Mm. wala sax ñu déterré la indiwaat la donc c'est euh, c'est pas mais mel ni kon nag loolu dafay deñ si àdduna nag moo tudd moo moo bindoo. Mm. ñu mos ñoo coloniser nag colonisation boobu moo léegi moo dañagul. ma ngay dañ nag quand maximum possible nag. Mhm. ndax léegi ñu ngi comment souveraineté bi ñu wax nii. oui fa des lu bari de mais am nañ ci quand yu ñu ci xaw a gagné quand euh, depuis que Abdoulaye Wade di ñëwee sax ba léegi di nettoyé parce que àdduna moo tëdd na noonu plus que ñuy dem temps bi di gën a yàgg. ñii di wàññeeku ñii di faatu yàlla na yéex ñii mujj ñëw ñooy gën a yeewu ñooy gën a jekku seen dëkk. man dama gisul def ma dëgg yàlla. Hmm. man dama li ma jaaxal mooy Sénégal. ñaata mooy salaire ministre loolu dañ ko war a xam. Ah. dëkk yi ci da xam internet. waay dañu la ministre ci dëkk lii mooy. vrai salaire am. vrai président rek bi sax dañuy génn. salaire am dañuy vrai. je pense que ne fii ministre waru fay ko 5 millions par mois. ah ñu leen koy jiiñ de waaw millions la ñuy laal. 5 millions la ñuy laal vraiment. Ah. waaw waaw lu yéem na ma xanaa loolu ci nguur gu mu gi la nii. déedéet ba pare boo ah, yow nga dem. ñoo xam ne amatuñu fonction. non je sais loolu moom. mooy président doon def ci dernier minute loolu moom kenn rafetlu ko même ses yi nga xam ne ñoo desoon ci ginnaaw sax ak moom. ñoo ko waroon gën a aay parce que loo fi def it kii bu ñëwee am na possible bu ñu gundee parce que c' est le gardien de la constitution. même ancien su ma juumul ñi jiite woon institution yi également. am na lu ñu leen di dàq non les présidents yi nga xamante ne les présidents loolu moom charte la moom président bu musee nekk président ba jóge fa moom dañ lay protéger say ginnaaw ko am ndax day ñaaw trop nga nekk président jóge fa ñu naan sa SDFS euh, yaakaar naa ma suñu ko jiiñ président bi dëkkoon euh, Bokassa Mm. ak doomam doomam xaw ma SDF la ak gendarme noonu. Mhm. loolu tam jar na éviter le président yi bu ñu fi jógee seen salaire yooyu ñu ngi koy respecté mais nag bu mu bu ci dayoo yoo xamante ne day mel ni ñu naan dañ lay jox cinquante millions par mois mbaa nangam sangam dafa war a nekk lu symbolique loo xamante ne. xaar na dañ ci mën a dund ndax dañuy jox garde corps assurer le seuil yu bari. est-ce que du dix millions sax. ah dix millions. ëpp na nag quand même ah. ci jox ko nit par weer président la woon ah. mais nag quand même sax la pour sa sa pour sa pays xam naa la ko gars yi defe woon loolu président de la République def def ci dernier moment yi quand même vraiment kenn du ko rafetlu et day tax sax nit ñi gën a am xol bu gën a fudd. ak yi fi xew ci ginnaaw di feeñ ndànk-ndànk. li ñu naan ko tukki nañu reer sa ginnaaw. Hmm. mooy lii rek président bu mu si nekk boo demit am na ay góom yoo fi bàyyi yoo xamante ne du wér ñi fi nekk nag foog ñu jëm ko faj mooy xew ci suuf yeeg. Hmm. ci littoral bi man sax maa ngi am sama téléphone bi. Hmm. yàlla moo dogal. il y a am na tey jii. Mhm. juróomi at. de 2019 ah, waaw merci beaucoup café gi ñëw na tafa du ah, ah suuf laa koy téye. waaw waaw lii ah. fi ne naan café ak ba pare. waaw ngeen di café te café amul. donc gis na par hasard. Mhm. fii ci Yoff. waaw euh, boo passé virage. Mhm. foofu su ma juumul am na ay temps le premier ko demoon na fi di entraîner. bay joxoñ di dénoncer. Mm. mais man dama ko def te rendu ma ci sax compte il a cinq ans. barki dem ma déggee ñu yëkkati affaire suuf yi. suuf yeeg bi rek. lay vérifier ni defoon naa ko ba génn ci yoo xamante ne maa toog man di filmer sama bopp di wax te boobu lépp amu fi. wala yàlla azim. mi ngi sama téléphone bi fii. waaw donc dafa daf ci am benn kër boo xamante ne. Mhm. boo commencé virage di dox benn tali rek moo dugg ci biir jëm ci géej gi. Mhm. tali de naturel ba ñu juddoo ba nga nii ci bi ngay jógee dox ba ca géej ga. toog ca xeer ya jël say sox sa xóor wala nga jël see jën boyal. di lakk. ma nekk samay diggantan di bëre. waaye yoof darma wokaam darma ngor darma ñoo fa grand place. mu fa daan entraîné di fa dallu. moo ci virage bi fii nii. ci virage mais un peu derrière booy dem ci hôtel bi ñuy wax hôtel euh, ah plage bi ñuy wax plage de Sunugal. sunu gaal ah, la yàlla tal sunu gaal ah. yàlla plage plage ah. boobu dafa góor googu moom rek àdduna bu tukki la góor ga sax dem na mais à côté jëm ci fi Sénégal yi tabax waaw dañ dañ dañoo dem a dem a dem ba baare tali ba maanaam baare fi ngay demee dugg ci géej gi man mosuma xam loolu ma demoon rek pour doon rafraîchir mémoire hmm. toog respirer ma ñëw ñu baari ko dem fekk benn paa mu ne ko góor gi waaw mu ne wiiril fi ngay wiiri benn ruq cinquante centimètres la da ngay brosse di wiiri ba dem wiiri pour mun dem fañ daan dem fa nekkee te tey laataa foofu kenn su ko woon wiiree foofu boo fa demee sax nga xam ne fii kenn war ko wiiree man je demande à ce que mur boobu hmm. ñu dindi ko dindi ko waxuma sax kër yooyu dem nga ba laajte lu waral suñu yoon nekkul ci kër mais mur ba ñu baare ba doo mën a jàll ci géej ga ndax am na ko tabax ci ginnaaw mur ba ah. te moomul yoon ba dañ ko war a rajaxe dem nga ba xam ki ko tawax kana xam naa ko mais euh, dul sama jikko pour ma naan diw parce que nee nañ ma diw moom moom ku xam la gardien ba ñaari yoon Moustapha dama laa rus man Bambey laa dëkk gardien laa bu yàq sama liggéey kooku mi ngi sauvé liggéeyam mhm. dañ ko fa teg na ko bu kenn jaar te am na bunt man nag bu taxee nga naan bu fi jaar dama xam ne naa doo jaar damay puus bunt bi damaa njëkkante moom bunt bi puus ko dugg bu yàq sama liggéey ma avancé ba ca géej dox la may dox ba pare mais waññeekuwaat nag fekk fa ay quatre gars ay gros bras yu taxaw yow la ñuy xaar. man la ñuy xaar mais nag. Eh. la ñuy xaar pour xamuñu tigre la fi jaaraat. <laughs> ma def ko défi nag. ne fi laay jaar fii coow di amee. mais xam nga rek comme que ñu tamit dañu yàgg nekk si dëkk bi di yëngatu di bëree ñu xam ñu. Eh, ñee ñëw ñu teg la fa ñu ay gros bras ba njëkkee ñu dañuy bés ah perte fa. Ah. mais sama waay ñu ne waaw ma leen ma expliquer sama histoire ñoom ñu ne sax boobu juddooguñu. est-ce que. fii dama fi daan yàgg lakk soosu xóor ñu fi lakk ay jën di fi ataaya di fi yendu bu vingt heures ñu doog a ñibbi su ma daan bëri fii laa daan fii lañ daan dajoon ñëpp suñu suñu gars yi mm. eh, maintenant nag mur boobu nag la ñuy demandé comme que dañ ne ni ñuy wax yi nga xamante ne waaw euh, boole lanceur d'alerte lanceur d'alerte mais c'est normal loolu bu ñu amee dafa war a yàgg maa ngi fàttaliku ay temps ñun euh, euh, l'ancien maire de Dakar la euh, Khalifa Ababacar Sall. Mhm. mu naan sunu doom yi amatuñu sax géej gi ñu fexloo mais la moo tax Sénégal Dakar bari ay ñuy lab. Mhm. parce que jàngatuñu fay amuñu fi ñu fee. mais parce que place euh, plage autorisée yëpp dañ ko soit construire. wala ñu def ko ay hôtel exactement fekk plage interdite rek ñoo fi nekk. dañu xam ne fan daan sangoo géej ñun. Mm. dañu jógee face jubal tout droit dem ba su mujjul. Ah. Mm. plongeoir a nga fa woon yëpp nga foon ñu fay sangu. daaw ñun ñun maître nageur jàngaluñu fee. naturellement lañ ko jàng parce que ay doomu Dakar lañu te Dakar ki di Dakar di presque du Cap-Vert da ngay dox rek dem hmm. bu njëkk ay deux personnes ngay dégg lap ci année bi mais léegi ay centaine de personnes ngay dégg ñu hmm. parce que jànguñu fay te bëgg nañoo féexlu mun nag ba ñu amee juróom ba ñuy jàng école ci géej ba mun a féey boo la koy à mun naa jóge fii hmm. su jun féey ba Île de Serpent man kese kenn du ma kenn du ma toog allez def su ma neexee ma jaaxaan tëdd nelaw ci ci ci ndox bi moom ma départ yëpp nag xale yi suñu doyee amuñu chance ba ah xanaa yi fay ay dix mille francs par cent yooyu yëpp nag yu ñu war la hmm. taxawal nañ travaux yi c'est normal état bi taxawal ay travaux réfléchir xoolaat ubbi waat travaux yi dégg naa ubbi nañ ko hmm. c'est bien mais nañuy ubbil yoon yi nga xam ne doon dem ci géej gi dañu fatt ko loolu mooy à part de virage jëm foofu nañ toj mur boobu ah. mur boobu du kër waaw te benn la bu jëm géej. ka fa ne te waxoo mooy kan groupe raay dañu gis am na gis ay quelques lutteurs yoo xamante ne ci lañ bokkoon quoi ay père Tafa ah non kii daal. ne naa la waa gi dafa tàmm jël groupe raay ki moom foofu. ubbi mm. waaw ma dem gentiment waaw. nga jàll mais nag fekk ma mais filmé naa ci taxaw naa ci biir filmé wax samay wax. ba ma génn itam taxaw naa ci tali ba ne leen tali bii ma doon jubal ba géej. Hmm, yépp a ngi sama téléphone fii. daa ko jox même ma fi nekkul ngeen ngeen ngeen. kafa tabax it donte doo biral turam nii nii nii sax war ngaa mën a am noo jaar ñu xam kooku kana. waaw nu mu fa demee ndax nan. ca jaamu gàllankoor waaw moom la këram lakkoon temps yee ci ginnaaw wala du moom. <laughs> kan la këram lakkoon ci gars yi. Ah, ñu dem ah? rek kon ah, ñaa ngi man foofu la dëkkee. kon kan ak ki ah, bu ngeen osé wax turam de man na ma naa ci àgg moom. ah egg egg ja. ah, ah moom la may moom lañ wax. xam nga tey ji nga dugg ci mbir ñu ne comment. mooy kii kii moom fi teg di gi. waaw moo teg fi kii fii kenn war a fi jaar. waaw ci ruq bu sew ba la waaye. waaw ruq bu sew bi moom ca ngay jaar pour lii di kër waa ji. <laughs> waaw kon mais jaarukaay dëggantaan ma nag mooy bi jubal directement jóge ci tali bi. Ah. mbëkk ba ca biir. donc pour expliquer rek que ne yoo mil boobu la wax di nit ñi féex ak tàngaay bi ñëw na bientôt les vacances xale yi jaar fa dem di lakk seen sax sa xóor ak seen ay buuj ak seen ay kër di fa xale yi ñooy jël seen responsabilité taxaw fa na ni mu fi jógee tey dix personnes bu ñu taxawoon rek di daaneel mur bi tey coow lay am hmm. gendarmerie ñëw ci suba ñu dindi ko parce que bu illégal la boo xamante ne dafa barrer les riverains et les voisins hmm. pour ñu accéder la plage moom moom la waaw Gone Saliou. ci ancien ministre yi. ñuy daggal salaire déjà yow xam naa ne moom mm, bokkoo ci ñuy ànd surtout soo xalaatee sax ancien yooyu ñuy wax ministre yi ci ñi muy dellu. waaw bu ñu xoolee ci seeni fonction ministre lañ leen euh, département yi leen taboon ndax déjà sax bu ñu leen di évaluer liggéey ba waroon ba tax ñu def leen ministre ndax def nañ ko. bu booleeg sax ñu leen tudd jamono ji ci ay scandale mm-hmm. wala ci rapport cour des comptes moom dana gën a dana gën a yéem waaw